waaw bëgg dimbali Sénégalais. waaw bëgg leen jàppale. ba saxal ji bi xam ne ne réew mi dafa mel. waaw ki taxaw nii rafetlu na ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. waaw dañoo def daara war a def liste. liste bi fi nekk toll na ci 400 personnes. toll na ci 400 personnes. kenn du moom. Wally Seck nee na lii fi nekk matul mat na 400 personnes yi ba pare léegi ñi nga xam ne bindu ñu woon ci suba. nañ dem ba jëmmi jamono waaye dina defaat benn communication bu ko defee yéen yéen ñëwaat ñu binduwul woon nee na fii ba tabaski incha allah rabbi képp koo xam ne wërsëgal ñu ci moom dina la jàppale léegi nag pour raison de sécurité ñoo bëgg ñii moo ngi fi ngeen dem toog ñu dañ koy wéeb léegi ngeen nga xam ne binduwul woon dañ Michael Balago, la décision de Genbaï, la décision de Genbaï. Mais du jamais vu, ici, à Kertjage, du jamais vu, de Michael Balago Zek, Wali Balago Zek, en partenaire, avec Wa, FPSO, en partenaire, avec Huawei. lii pour la première fois de Sénégal lii Wally Ballago Seck ar ñu néewoon doom de partout am am na ba tëgg ko ar ñu néewoon Wally leneen leneen tey mi ngi nii filmeel engagé ko Expresso nag loo engagé mu daal Expresso fexe ba Wally nekk seen ambassadeur fii Sénégal am ngeen problème bu toll ni màggal Touba xam nga Wave ñam na yéen a si des des na ñii ñëpp Expresso moo leen fas tey bu neexee suñu borom la gël doon booy de la musique sénégalaise suñu patron suñu sa patron yow it. ma ne ko doom day tontu ndayam barki Serigne Bamba. Wally moo ci bi. doomi Balla ko jooju rek ca kaw ca kanam ki ko yéene lu bon yàlla yàlla boo ko fekkee maa la wax loolu xanaa gërëmoo embrassé coussé bébé li wax internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ginnaaw ba mu defee déclaration boobee démb moom mi nga xamante moom moo di Wally Ballago Seck ne tey képp koo xamante ne mi ñëw nga indi plus expresso fii sa buntu kër dina la jox moom moo di xarum tabaski mu mel ni nag affaire bi dafa xaw a jéggi dayo loolu ñu togg ki nga xamante ne mi moom moo di rakam moom itam mu bëgg ni soo indi li nga xamante ne moom moo di ay leeral Alioune ñu ngi lay nuyu bu baax a baax maa ngi ziar baa <laughs> yëpp di euh, masawu suñu dëkkandoo yu nekk fii parce que c'est très important mhm. Wally dafa def benn euh, sortie bu xaw a euh, improvisé wu pour bëgg dimbali sénégalais yi mhm. xam na jafe-jafe yi nekk tabaski fekk mhm. ñu bëri seen loxo jotuñ seen ginnaaw moo bëgg def benn et dimbali leen ko pour ñu mën a jàpp ci dara tabaski bi mais comme ni ngeen ko gisee yéen ñëpp affaire dafa xaw a débordé ñett vague ñëw nañu première vague ñëw na ci suba bindu ci lycée yi on a plus de 649 personnes. Mhm. yu ñu war a dimbali. et euh, ku ci nekk tey bu soobee yàlla di nga jot sa wave xaalis bu la wàll say bëgg dimbali tabaski bi comme ni mu amoon yéene bi. mais on n'a pas la sécurité qu'il faut dehors. Mhm. dëkkandoo yi amal leen ak nit ñi bëri nañu fi te soo gënee di distribuer xaalis dafa am yeneen problème. du coup je tenais à faire cette déclaration pour leeral yenn affaires yu gën a leer pour euh, ku nekk sa xel daal ñi nekk si liste bi fii. Mhm. sa xaalis di nga ko jot. Mhm. via Wave comme Wally Seck voilà premier à tous. Mhm. ku ci nekk sa xaalis di nga ko jot. ñeneen ñi nekk fii tam wax na leen dem ba benn parce que sécurité amul et que nit ñi dañoo bëri. Mhm. Wally na def beneen sortie def déclaration expliquer leen jox leen rendez-vous ci lieu bu gën a yaatu dat bu gën a précise à une heure pour ki nga xam ne tam bu ngi leen dimbali et que ñi ngi woon fii mënuñu woon gis Wally parce que xat na ñu ñëw bis boobu. ku ci nekk sa wërsëg tabaski boo dee jaar ci yàlla Wally Balago Seck yàlla na def mu jaar ci. yéeneem la amoon dimbali Sénégalais yëpp mais mu nekk yàlla sax defee ko noonu. Mhm. je tenais juste à Massawu dëkkandoo yi remercier les personnes qui sont venues di encourager Wally di ñaan Sénégalais tamit ñeneen ñi mën a xam ñi nga xam mën nañu def ni Wally pour dimbali nit ñi. Mhm. nañ ko def parce que c'est très important. Mhm. nit ñi sonn nañ et amuñ ci kan nañ mën dem pour taaleen seen loxo. ñu bañ a xaar nit ñi ñëw ci ñoom pour tànn pour ñu dimbali leen ku ci mën def déclaration dimbal nit joxe point de rendez-vous pour dimbal nit ñi na ko def comme il fait. di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm yàlla yokk wërsëg bi ndax xam naa ne moom wërsëg bi ñu xam nañ ci. maa ngi remercier ñëpp di masawu ñëpp encore une fois c'est juste une déclaration. mu bëggoon def di remercier Expresso Wave pour la nouvelle collaboration ak Wally Ballago Seck. Euh, ñoo xam exactement euh, ban euh, seen collaboration ak ki demee est-ce que ñu ngi ñëw dafa nekk terme bu bu xaw a délicat moo tax bu ñu ko wax ci kii mais incha allah bu beneen yoon bu ñu ci gën a teg bët nañ la ko mën expliquer bu yàlla. avec les 17 de Sénégalais qui sont au Sénégal Wally euh, déjà il y a une liste xam ne mu di bëgg a soutenir. Hmm. boo leen yoo xam ne des acteurs de bienfaisance parce que réew mi tamit parfait ce serait parfait et ñoom ñëpp ñi ngi ñaan ñu ñëw dooleel Wally parce que nit bu nekkee def yéen da nga koy dooleel mën nga bañ si tànn parce que ñu jege ko ñu bañ ko jege. ku ci nekk sa wërsëg bu jaay ci waali waali na ko teg ci yàlla na ko teg ci loxo waali pour mu ñëw ci yow incha allah bu soobee yàlla. gis nañu euh, comme mel ni euh, doomu Macky Sall mi Amadou Sall day yëkkati ay euh, moto di ko may ñenn ñi nga xam ne duñ ko yóbbul seen population. Wally sekk moom mi yëkkati alalam ci poosam yëkkati di ko def di ko jaay di ko dimbale ay jaamu yàlla est-ce que du sam tamit tamit gouvernement Sénégal gëstu Wally Seck gën ko may doole jàppale ko aussi tamit mu ngi def pas gouvernement bi kese waaye képp ku mën jàppale pour mu jàppale nit ñi mën nga ko jàppale ñun ñuy nekk fi sax bu ñu amoon suñu 1000 francs 1000 francs joxo ko ci benn kees mu koy dimbali nit ñi dina dimbali ay nit yu bëri ñu bañ ci xaar gouvernement moom façon moom xaaru ci kenn ñaxam lay jël di ko nit ñi parce que comme il le dit tout temps li mu nekk tey sénégalais yi ñoo ko def Wally mënul doon dara sans sénégalais yi et ça c'est message que je voulais faire passer à travers euh, vos télévisions pour mu leer ci bopp ñëpp Wally Seck amul lu ëpp Sénégal mm-hmm. lu dul Sénégal amul leneen lu ko ñor du Sénégal musul am tabaski wala korité mu woote ay camerounais wala chinois wala burkinabé ne la ñëw leen mu jox sama xaalis lu mu am Sénégal la koy jox du coup il a besoin d'un soutien de taille Sénégal di ko taxaw ci lépp parce que Wally bu Sénégal amoon dix nit ci mel ni Wally nit ñi dinañ duñ sonn ok à un point mais dina wàññi lu bëri parce que dafa am xol ak yéene bu am ci biir nit ñi du ñu jàppale ko moom mooy jàppale ñooy nit ñi rek incha allah. gis ban jàngat nga ci am. non loolu moom mënul ñaax. Mhm. critique moom Wally ci la moom ci la juddoo ci la màggee ci la defee carrière am chemin am yëpp critique la du moom moom côté woo moom on s'inquiète pas incha gis nañ benn communiqué bu waa Walfadjri yi génnee ba ñu waxee ne Wally Seck dafa dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, waa Walfadjri ci 20 millions demandé ko est que loolu mën nga see indi leeral. waaw mais en fait xam nga Wally dafa mhm. comme 20 millions dañuy def euh, déclaration. Mhm. du génn noonu. ñu toog noonu jàpp suñu njàmbur bu ngeen gisee lu am internet rek tout le temps xale ñu jege waa def déclaration wala waal ci boppam wala waa wala fajar wala keneen. parce que wala benn bruit bu génn na rek ndax am na wala amul man wóoruma. parce que genre euh, moom mën na def ci sutura comme mën na def ñu aviser ñu ni pour ñu génne ko. mais comme je dis tout temps rek waale moom bu defee moom bu amee yéen def na ko def. su amul yéen def moom kenn du ko forcer mu def ko. def naag def naag wala faj def démenti dañu waroon xaar ba Wally Seck def sorti ne moom moo may Walfadjri 20 millions et c' était pas le cas non. lay jaajëfal. ku nekk xam na ko ci àdduna bi surtout mag bi Dakar naa ku nekk xam na ko ci information yu mag ah Dakar laay bi euh, site xam ne international la ah, lépp loo xam ne lu baax da koy wane macha allah étage tey nag ñu ñëw fii di tabaski ñu ngi tabaski kër Papa Thione suñu papa yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana waaye itam ma jaaga yal na ko fi yàlla bàyyi ci barke alxuraani karim ba que lépp moom la moom muñ ci kër papa toon ba tey am koo xam ne bu nee dama ñëpp déglu di Wally Ballago Seck tey nag tabaski ko xam ñëpp jooy ci Wally Ballago Seck mu dajale fii képp kuy sénégalais képp kuy néew si doole képp koo xam ne doomu aadama nga war a tabaski li mu am li ko yàlla jox ci musique bi li ko yàlla jox ci wërsëgam mu dépassé ko ak doomu aadama yi séddale ko ak doomu aadama yi moo waral mbooloo mi tey kon kooku dañ suñu fierté la li amul benn fu ñu rang ma gis ko pour lu kër Wally Ballago Seck waaye nag muy doomu Sénégal di ndamu Sénégal lépp loo xam ne yalla jox na ko ci loxoom rek seen jaamu yàlla yi du bàyyi kenn kon kooku mooy Wally Ballago Seck di wax sénégalais yi nañu xam li ñu am nañu xam kan mooy Wally Ballago Seck damay wax ne lii moo tax ma ne keroog Euh, gars yu bëri di critique man leen wàllu dafa am nu muy demee lii boo ko xamee xoolee xam ne nit ku war a def mbooloo mu toll nii kon Wally Ballago Seck nañ koy ñaanal Dakar Live nag yow wax dëgg yàlla euh, sama PDC dugg PDC lépp loo xam ne euh, ak taaje la danga koy wane macha allah doo wane benn lu bon ñaaxaral nga muy noonu ñaa dañoo kontaan ndeysaan dalal sa xel ñëpp nañ am xaral expression mën na lu ne waaye non bindu ngeen. ma ne la journaliste bi kenn nettali waaw maanaam initiative bi ñoo ko jàppatee ñoo gisee waa lii daal initiative bu la